mu ñuy wax abu Ndiassé ñu ko seet si fii si jàmm gan Abou Ndiassé ñu ngi leen nuyu. Maama Lamine sama deret sama mbokk. waaw naa ma sant yàlla julli si yeneen bi. Mhm. sant samay ñaari waajur bu baax. Mhm. santaat samay ñaari waajur sant Baye Sidi Mbacke. point. Abou. maama waaw nga sa combat yow ak Pam Ndoye. defet bi noo ko dundee ak noo ko jàngatee. métti. <laughs> torop mais keroog ni nga ñëwee ni nga ñëwee. waaw yow xam nga ni làmb ji am na lu ma si daj. ndax ñëpp ñoo ànd dem Gambie. xam nga nekk si yow sax bi ma PAM doy daane yow da laa jaaxal. dëgg la mais nag sant naa. mais bokk na si làmb yu ma gën a soge sama àddina. Mm-hmm. bokk na si làmb bi ma gën a am doole sama àddina. Mm-hmm. bokk na si làmb bu ma ku ma yeewoon ne ma PAM doy dina la daan si àddina du ma ko gëm. mais bi mu la daanee. Mm-hmm. lan nga njëkk xalaat. ni ma daane dama xalaat ni nit xam nga daj lu nekk dajaloo xam nga jël seen dërëm seen ñaar dërëm def ko si man defar ay t-shirt xam nga dem ba Iba stade Iba Mar Diop xam nga kon loolu man am na lu ma metti na ma daal mais sant naa yàlla tamit. dëgg la. Mhm. mais ñu gis nga ñëw ànd ak tarkindaa yi tuus tuus mu rëy abu andi état bu macha allah bu doy waar stade bi ñëpp jox la bopp. nga bëre façon bëre bi nga bëre est-ce que li nga bëree teg nga ko si yoon. tegu ma ko si yoon yow sax xam nga ne man tegu ma ko si yoon. waa lan moo tax nga bëree noonu. waaw maanaam yàqamti rek ak. mais abu ak fi la àdduna bi yëpp di xaar. est-ce hmm. yow war nga ñëw ci làmb di yàqamti. non bàyyi naa ko bàyyi naa ko li tax ma koy bàyyi mooy war na ma jàngal. làmb bi waaw parce que nekkul woon làmb bu ma war a ñàkk. mais nag jaam ak pexeem yàlla ak dogalam. Mhm. mais fu mu doon méttee pam Ndoye bi mu ma daanee sax. ne ma non lii wala liggéeyul wala lii xam nga. Mhm. loolu tamit dama si dafa am lu ma yoxaat ba pare ma daanu nit ñi gën ma ñaax. Mhm. te jël bi ma daanu day mel ni mënuma dara. dèjà waaw te pourtant mën naa lépp. Mhm. mais làmb ngi suñu kanam. waaw làmb ngi suñu kanam te ñun li may wax rek ñu ngi ñun ak yéen ñu du mos a dëñ ñu ngi seen ginnaaw bi si kanam daal yéen daan fàddu ñun ñuy rendi. instant bi lan lañ mën a xaar ci Abou Ndiassé. waaw beneen combat bu métti nag. kan nga bëgg bëri la sànq. non xam nga combat jànk. combat jànk. waaw comme kan. comme bi ma jógee waan rek comme comme comme bu mel noonu rek. non limal ma adversaire yi ñu. non xam nga làmb moo garaaw léegi. Hmm. koo fi lim gaalem lay toog di fuñi di jaay lu amul. non mais mën nga ñu wax ñetti adversaire ba ñaar. ci koo xamante ni tey bu la leeroon ni promoteur ñëw la ne la sa diw sa combat ak diw laa bëgg. Hmm. yow pare nga pour bëri wala lan. promoteur yi xam nga ñu may wax ay combat. Hmm. mais combat bi ma bëgg bi ñu ma ko waxee rek ma jëlaat ko. comme ku mel ne parce que làmb mooy sama métier. Mhm. moom laa am moo tax ma bàyyi lépp. mais daal si ngàttal làmb bi ma bëri bu mel noon laa bëgg a bëriwaat comme maanaam bu ko déggee mooy làmb jànk comme sa morom. parce que sa morom quoi. sa maama maama yow bul fàtte ne say morom nga fi daan de moo tax. waaw waaw la xel waaw loolu dëgg la. waaw loolu lañ bëgg. baax na léegi comme comme ku mel ni kan. non du ma lim kenn. non mën nga ñu wax benn adversaire sax ñu. xaw ma sax man man moom si dal naa la ñaari adversaire comme mhm. comme comme comme comme ni ko làmbkat yi di dundee rek. Mhm. mooy yow ak Nandu Fall neex na. Mhm. Nandu Fall yow ak Onde la fu. loolu neex na. ah loolu daal bis la yow xam naa ne bañoo ko tamit. man ragaluma dara. bañoo bis yooyu de lamb daal laay bëre bëgguma bëre paa. sama morom la waaye samay morom moo ko freiné. lu leer lu leer fu làmb la. jeex na ah? bàyyi ma fi kenn daal maa ngi fi ah, pour làmb Nandi Fall yéen ñaar combat bu neex la. loolu promoteur war nañ ko ba pare. Mhm. waaw léegi nag li ñuy waxaat mooy. Mhm. abu naka la waajalee combat mu doomu ndeyam xaritam. waaw combat bi ak Papa Sow coow li ci jot a am. tat bi yàgg na ah mhm. ngeen dund ko dund boo xamante ni et xam nga bi làmb jeexee ba léegi coow lu bari li si am Papa Sow toj bët bi expliqué ñu nan la demee foofu abu waaw yow làmb ji yow dara ëmb la si mhm. yow xamoon ñoo ànd Gambie te yaa jàpp si loxo si te yóbbu ko Gambie yow ak man mhm. mais gàcce ngaa laa ma xam ñun fu ñu doon rusee wala yow nga rus si te simeeko ñu ne càmbay mais si bi mu simeekoo keroog képp ku ko gis soxol sedd na dëgg la te maama làmb ji dafa métti combat bii moo gën a métti si carrière Siteu. parce que du du deux ans trois ans la. Mm-hmm. trois ans muy yàqu ñu koy muñ. ba mm-hmm. Abdou Fall su mës na yëkkati juróom ne ko mbëri dooleel naa la ko. Mm. mosu ko def. Pape Fall mu su lool. non non mosu ko defal. Siteu xam nga xaw ma mm. beneen mu mosu ko defal Siteu. mais lu tax ngeen toppaat ci combat bi di bëre ba tey ba période bi. Mm. waaw combat bi moo xaw a yéeme. combat bi li tax mu me mooy papa moo waroon gore rek ñëw bëre te toujours damay dégg ñu naan ay papa da doon saraxa ji saraxewul. vidéo yaa ngi si mënul bëre parce que dafa blessé. waaw mais moom dañ ko dóor comme na lañ koy waxee te papa sax ndënd ndënd lañ ko dóor kooku mënatul bëre. mais lan la def balaa ñu ko door ndënd. waaw loolu laa bëgg nga ñëwal ma ci. waaw directement maanaam xool na la papa saw def. ba dóor ko ndënd. papa saw voilà loolu laa bëgg nga. dafa jël sarax. Mhm. jox ko góor a soog. waaw li mu wax. góor a mais yow sarax waaw. yorul sarax. Mhm. mais yow boo yoree sarax lan ngay jël liñ zone bi ligne zone bi kat yee fa nekk. waaw mais boo jëlee ligne vert kenn du la fa kenn du la laal. kenn du la laal jaar na noonu tuus ak ay nitam kenn waxu ko dara. waaw xam nga li ma la mhm. mais Papa bi muy ñëw jëlu intention boobu. parce que bu jëlee intention boobu yaakaar naa du gaañu. te moom bi muy dem di jël intention moom moog Siteu rek a des si. ñoo des si combat bu. combat bu mag mooy dernier combat boobu pare na pour wo simeeku. Mhm. pour dem si biir géew gi. mais yow bu dee da ngay saraxe doo jël ligne vert bi ligne jaune katam yee fa nekk. Mhm. mais jël liñ verte xool ndax kenn na la def dara. Mhm. mais yow nga ñëw yëkkati sa loxo yor béjjën war a jam nit ki mu moytu la. nga dóor ko jiili la bëggoon jàpp. jiili jiili mi naan moo moo ko dóor kii. jiili dóoru ko dafa ko dara mais dafa xàcc jam. mais jiili moom lan la Siteu moom. waaw jiili deretu Siteu la. mooy tëggal Siteu quoi waaw. léegi moom lan moo tax gars yi naan moo xaañ Siteu moo xaañ Papa Sow laa waaw mm-hmm. parce que ndënd bi parce que boobu xam nga Sidi ñoo teewul instant boobu ndax boobu amaguñ preuve bu leen leer. Ah. ñoom gis nañ deret ji rek. mais xamuñu maanaam action bi fu mu jógee. fu mu jógee effectivement. mais après gis nga moo tax téléphones yi tamit baax na torop. ndax ñun téléphone moo ñu setal. yéen bi ngeen demee bi am si lu leen leer naka ngeen def. non man dama man dama yàgg xam ni Papa moo yàq làmb ji. man loolu lu ma leer la. parce que ku xool Siteu keroog xam ne ñëwul pour xuloo ay nitam ñëwuñu pour xuloo mhm. ñëwuñu pour dañ ñëwoon pour làmb boo gisee ñu gàddul Siteu ban ñëw tegal ko Siteu ñëw tuus tuus tuus bu gàtt ñëw toog tuus ma tuus ma sax sax ndeysaan Papa Sow bu mu dawee jaar ni dégg Siteu Siteu la mhm. xel bee ñibbi si biir làmb ji sax damay gis Papa Sow bu duggsee day jooy rek di xataraay waaw parce que boobu xel bee ñibbi mhm. loolu jàmbaar dëgg moo koy dëgg mooy dugg na xel bi dem Eh. waaw mais loolu boo doonul jàmbaar mënoo dékku loolu. Hmm. te billaahi mënoon na ko bëre ci ngor ak jom. léegi yéen. Hmm. loolu yëpp jeex na léegi CNG décision bu mu jël ak Pape Abdou Fall yéen ban taxawaay ngeen ci am yéen. loolu man ay ree la ma def. parce que la defee ay ree. CNG làmb de laa la ay ree lañ ma def moo jël dogalam teg ne lii yéen léegi bi ngeen ko déggee ban réaction ngeen de parce que ay ree la def. jàppaat nañ date de. la lañ jàpp le 29 janvier. nañ ko nañ ko jox benn mbër boo nañ ko jox promoteur bu amul date. Hmm. surtout du mbëru ay benn un mois ay deux mois. surtout làmbam gars ay million lañ ciy def. ay millions ah, mais Pape Abdou Fall nee na moom bëri rek de. non Pape Abdou Fall lay nelaw sama père la nag du ma ko dépassé mukk mais dafa juum. dafa juum waaw. Pape Abdou Fall jaay na ba jaay bi surtout guy gi. surtout guy gi effectivement. jaay na ba jaay xaw ma ak beneen mbër bugguma fi lim beneen mbër. Mhm. man si te rek laa gëm. dëgg la xam nga ma kon moom waroon na mën a gore sax maanaam mu am nu mu waxee sax parce que ñëpp ay gor lañ ndax moom bu ko gars yi toppoon duñ ko bëral. làmb ji def na trois ans. def na trois ans yàgg na trop. bu ko gars yi toppoon duñ ko bëral wala da leen dolli xaalis kon na xool loolu te mu xool moog si te fi ñu jugee coloré bi ñu seq moo ëpp fop kon ay sagaru weccet yi waru ko mën a yàq. kon daal su ma la bëgg a déggee yéen hmm. pare woo leen pour bëriwaat ak papa déggoo ma ñu ko sax te Pape Abdou Fall day jox si ta xaalisam de xaw ma nu mu koy joxee nag hmm. mais koy jox de barki Serigne Sidi Mbacke si kattanu yàlla hmm. da koy jox xaalisam dina ko fay de ko fay yee mais yéen leen ba léegi ñu leen di jox xaalis lu tax neex bëriwuñu bëriwuñ combat jotul am maama ñun ñëw nañ rempli suñu contrat duy làmb ji bu fekkoon ñoo ko yàq ah. bu boobaa buñ nee duñu jox suñu xaalis dañ siy d'accord mais ku ku ñeme dëgg li nga xam ne ñun yàquñu làmb ji ku ñeme dëgg nag laa wax. Hmm. per Tafa Gueye li mu waxoon bu ko si kenn balaame xam nga du ma ko ci balaame. Hmm. gisuma ko de mais moom bu gisaatee beneen vidéo bi non dina xam ne Papa saw moo def erreur. mais premièrement bi li mu wax il faut gars yi comprendre ko. parce que hmm. boobu day jàpp ni ñoo def erreur. dëgg la gisul woon yeneen feey. non du moom kese sax. waaw Modou Mbaye tam maa ngi dégg Papa Sow di ko kalaas. Papa Sow cuuna la. Modou Mbaye déggoon li mu fi def loolu la maanaam papaam li mu fi def mm. moom mu ngi si tànk yooyu na ko ñaanal borom bi defal ko jàmm Modou Mbaye waaw pourtant man daanu naa Modou Mbaye na ma mënuma bëre waaw mais dama ci fier te mm-hmm. pourtant mën naa bëre wala mënuma bëre mën nga bëre daan naa ah, sant naa si mm-hmm. parce que moom loolay rôle am loolu mooy rôle am du ma ko si critiquer damay xool li baax ma jël ko li bon ma tegee ko na le te moom waroon na xalaat dimanche Modou Mbaye pourtant wax naa moom téléphone Modou mbay boobu ñu la jox toor mhm. est-ce gis nga fii ñu ko si wax dara wala ñu mere ko si Modou Mbaye vidéo bi njëkk a génne daa tax ñu mere leen sax waaw vidéo bi njëkk a génne mhm. Modou Mbaye dafa jox toor ñun mhm. mais naagis dañ ci firi parce que dañ xam ni tooñu gis nga boo tooñu loo ragal mais kon mardi wala lundi leneen mënul génn kon yow yaakaar nga ni Papa Sow moo tooñ quoi mais billaahi moo tooñ te parewul pour bëre maama man nit rek laa parewul pour bëri ak ni mu mel noonu parewul papa maa ngi ko gis muy xataraayu rek waaye xataraayu di waneewu di def papa Sow dégg na bu taxawoon deret di xooloo gaan ñun duñu ay dof mhm. yow nan ngay gaañoo topp di di dox di kon bëggoo sa deret arrêté mais deret bi bëri na ne parce que moo tax deret yaram bee tàng mais bi ngeen gisee deret yu bëri yow na la leen de non man loolu man mënu ma góon man loolu ak ah, deret ji la muy bëri yëpp deret boobu moo ko génneel boppam nan la ko génneelee boppam mais nan ngay gaañoo di jaabante ok boo toogee dañuy calmer sa deret nga dem bëre ji waaye si te ngan di xeer lañ ko doo si bopp bi. bopp bi ŋaañ fii. moo guy gi. te daa dem bëre ko si ngor ak jom. Mhm. jëlee ci te boobu CNG ñoom CNG laay wax ñoom gis nañ loolu. Mhm. Pape Abdou Fall gis na lool bu ko neexoon ñu ne du bëre. dëgg la te ñenn ñi dañu bañ ne du bëre mu a mhm. day bëre. mënoon na ñibbi. te looloo gën a métti lii fop ay ndënd yow. nënd day dara gars yi bëgg ko garaawal daf ko problème mu mag. amoo ah lii du coow. du coow combat Siteu Zarko moo pu coow fop mhm. te dañ ko bëre. barke Serigne Sidi Mbacke. léegi li ma lay laaj bariwul mooy abu. Mhm. sita lu tax bu amee combat dëkk bu yëngu. waa Siteu nañ ñëbi tëj kantin yeeg tëj yëpp pour lan loolu lu tax loolu. waa loolu. fitna la wala lan la wala lu xew. mbooloo bee bëri rek. mbooloo bee bëri rek. mbooloo bee bëri rek ba xajul fenn. Siteu lan la lebal ñooñu. Siteu lim leen lebal gars yi ñu ngi koy gisee lu na fànn kenn du ko jeex. li muy c'est la première fois ñu gis arène naan nag mbër def ko nii. waaw te xoolal ñu bëri dugguñu. Siteu ak waa Jàmmagan lan la. Siteu ak waa àddina sax laa yow dama naa waa Jàmmagan parce que dafa dëggu. Hmm. bu ko neexoon mu xool luy dem si poosam. dèjà mais Siteu xoolul luy dem si poosam mu ngi xool nu jeunesse bi. dèjà avancé Siteu loolu la ko nit ñi fay. li mu li mu joxe jeunesse bi la ko jeunesse bi delloowaat. kese effectivement. maama dama seetaan benn vidéo sama yaram dafa daw. moom ma ban booy la. mais dama gis mu def benn vidéo mu ngi def. vidéo def photoshoot. waaw mu ne kii sénégalais waxuma sax sénégalais jeunesse bi bu ñu ko gën a gore. Hmm. maanaam moom bu mu leen gën a gore. parce que xam moom moo fiy waxal dëkk bi donte ni waxul lu ñaaw waxul lu ëpp waxul loo xam day yàq mais day wax li nga xam ne moo ñuy jëmale kanam te tey li mu doon wax yëpp. tey résultat bi ñëw na. feeñ na nit ñi. Mm-hmm. waaye nit ñi am leen yombul de. dëgg nga koy liggéey. da koy liggéey te da ko liggéey. yow maama barki Serigne Sidi Mbacke li nekk ci biti moo fopp li dugg. gis naa loolu. dañoo jaay ba doyal. Mm-hmm. ñu doon xeex si biti ñu naan dañuy xeex dañuy yàq. Mm-hmm. dañoo jënd ay billets mënuñu dugg. te neexul nga ñëw jënd billet pour supporter sa mbër duggoo. boo amul muñkat kat dëgg. boo nekkul muñkat dëgg di nga def neneen. te si te booy yi dañ ko bëgg. dañ koo bëgg. balaa ñu doon xam ne doo ko bëgg mu taxaw fii léegi woote fi mu mel nu mu meloon. mu mel lu meloon loolu dafa yàgg si moom. exact parce que Serigne Sidi Mbacke. abu li ñu amoon ci waxtu jeex na. Mhm. fu mu ne nii looy tàggoo ak looy gërëm. koy sant mhm. di bëggee waa Gambie. di bëggee waa Gambie. di bëggee waa Gambie. sa waay nii moom suñu waay la. Baye Zal Baye lu jóge. Mhm. xam nga bu ko neexoon mën na ko ci bañ a fekk. moo tax boo amee ni ñaaxoo dara. dund lu naaj rek am solo. dëgg moo tax moom xam nga champion la. Mm. xam di sant waa Gambie di sant ay Moussa Paate ñoom Cheikh Diouf. Mm-hmm. waa Salwa ñoom Papa. Mm-hmm. xam nga ñoom Kémo parce que ñooñ tamit am na lu ñu def si ñoom am lu ñu def si xam nga. Mm-hmm. ñoom Alsaan ñu foo dem ci ay Alsaan ñoom Bek. waaw ñoom Malick Fodé. ñoom Malick Fo Fo xam nga. O Boy. I yi. di bëggee waa Gambie di leen wax na ñu ngi ñëw ñun Gambie lañ am amuñu lu dul Gambie. am from Gambia. si de léegi Gambie sax da koy xëccoog ñun ma ma loolu ma jaaxal. <laughs> bilaay mbokk Leewtoo yi ñu ngi leen di sant di leen gërëm mbokk téléspectateurs yi kii lañ leen doon seet loolu muy Abi Ndiassé ñu gën koo xam di doomu jàmm ngeen doomu Sikaaj Mbaaw ah mbër lay soxor moom lañ doon seeti loon ñu ngi leen sant bu baax dina dinañ jox rendez-vous à très bientôt